ñëwaat nañu ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ni moom moo tudd warattilil qur'aana tartiila di jotaay boo xam ne dañ ci jàngat eh, règle yi nga xamante ne ci la njànginum alquran wala tege ngeen mën ko suivre incha allah ci ahlul quran point com wala compte youtube ahlul quran wala compte youtube bi tudd la maison du coran yooyu yëpp incha allah di ngeen ci mën a toppee jotaay yi ak yeneen yu am solo sunu jotaayu tey nag ñu war door incha allah ci jàngat téere boobu yi nga xam ni mooy téere Tuhfatul Atfal te jotaay bi passé ni ngeen ko gisee woon ñu doon jàngat ki ko bind ci aw turam waaye fu mu dëkkoon ñenn ci ñim jànge ak lenn ci am mbindam ak eh, man at mooy mi nga xam ni wér na ne dund na ba ci at moomu ànd ak ni mënuñoo dogu ci moomee la génn àddina wala meneen ginnaaw loolu kon sunu jotaayu te incha allah dañ ci door téere bi di sukkandiku ci sunu borom subhanahu wa taala di ko ñaan mu tawfiqal ñu ci leeral sunu ay kàddu waaye tamit eh, dëgëral lañ sunum xel ba li ñuy wax lépp leer nañ te bu leeree defal ñu tawfiq ba ñu ñëpp mën koo jëfee jamono bi ñuy jàng alquran Cheikh Suleymaan al Jamzuri rahimahullah ci téere bi kon buntu bi njëkk ak laytaay la ab muqaddima la mu wax ci bayti yi nga xam ni ñu ngi koy waaj a wax tàmbale ci yaqulu raji rahmati alghafuri dawman sulaymanu huwa aljamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala ñu mom Cheikh souleyman ci njalbeen dafa présenter bopam mom mi wax wax ni yaqulu mi ngi wax yani mi ngi bind ak mi la mi ngi talif raji rahmatil ghafuri jam bi nga xamni ni dafa yaakaar yermane borom bi subhanahu wa taala dawman faw borom bi nga xamni moy borom yermane ji faw waye moy borom njëggal li faw جامبو بي موي سليمان هو الجمزوري سليمان موي اوترم هو الجمزوري يعني موي الشيخ سليمان ما دكون سي دك بي نيو الجمزور ناخ بي مون سليمان دي كيسه يالا من دوغال نيو داجيك يينيني سليمان يو خامتيني اي بروم خام خام لاني نيك صاح من نام سي اي بروم خام خام سي وال جي موي واخ موم وايي مو بريسيزي indi aw dakantalam wala delloo bopam ci dëkkam pour ñu gën ko ragné gën xam Cheikh souleyman momi ñuy wax moy kan kon dawman souleyman huwa al jamzuri yani Cheikh souleyman al jamzuri mom ci bopam mo len présenter bopam wax aw turam way wax tamit fu mu dëkk ginaaw ba mu tek ci sant yàlla alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala alhamdulillahi cant ñel na borom bi subhanahu wa taala di ko sant di ko màggal di ko kañ moom borom bi subhanahu wa taala ci ab dayoom musalliyan ala muhammadin musalliyan di julli ala muhammad asalaatu ala nabi nag sallallahu alayhi wa alihi wa eh, bu dee ci jaam la jóge mooy jaam boobu day ñaanal borom bi day ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yokk ko waaye gën koo màggal moo tax bu ne musalliyan ala muhammad mu muy ñaanal suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci boroom subhanahu wa taala yàlla gën koo yokk yërmande gën koo yokk ak màgg gën koo yokk gépp may goo xamante ni mas na koo may ala muhammadin wa alihi ñaan googi mu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa mi ngi koy ñaanalaale ak njabootam njabootu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag mooy waa këram comme ni nga xam ni saxaaba yi maanaam euh, borom xam-xam yi firee nañ ko noonu alu alu bayti rasul sallallahu alayhi wa sallam waaye am na ci borom xam ñu ni gën naa yaatu loolu maanaam njaboot gi moom ñëpp dañ ciy dugg maanaam jullit ñëpp ndax kenn ku nekk yonent bi daa taxaw taxawaayu baay ci yow ab julit jullit annabiyu awla bil muminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum kon loolu lay firndeel ni Euh, ñi nga xam ne gën nañoo yaatal wa alihi ba dugal ci képp ku dib julit euh, man man na cee ma mën nañ cee dugg waman talaa waman talaa yaani wattaabiciina lahum bi ixsaanin ila yawmi ddin ñaan gi ma ñaanal yonent bi sallallahu alayhi ñaanal ko alu bayti nabi sallallahu alayhi wa maa ngi koy ñaanal tamit képp koo xam ni topp na yonent bi ak njabootam ci njub ba keroog bisu penc di taxaw waman tala kon dañuy gis ni baytub ñaareel boobu sant na ci yàlla julli na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñaanal na ko xéewal ak mucc ñaanalaale ko ñi nga xam ne ñëpp ñaanal na leen ko ci baytu boobu mu ni wa baadu hada an-nazmu lil muridi fi nuuni wat tanwiini wal muduudi bayt boobu nag mu présenté ci wala mu tàmbali cee présenté téere bi ak lim ci jàngale mu ne wa baad ginnaaw ba haada mu way wii téere bi nga xam ni ay way la lil muriidi ñeel na ki bëgg xam wala ki bëgg am xam-xam fi nuuni wa tanwiini wal mududi ci atteg nuun ci alquran moo xam dafa sukuun te tanwin day dugg ci biir wala dafa shadda wa tanwin wal mudud ak attey xëcc ci alquran a chakkani nuun ni ma ko junj sànq bu sukuunee day am ay atte waaye tamit bu shadda day am ay atte tanwin tamit di jaari masque moo xam ñaari masque yi kaw la wala ñaari masque yi suuf wala ñaari masque yi lonk moom it dafa am ay atte ci alquran bokk ko ak nun gu sukun wal muduudi ak atte xëcc xëcc moom it dafa nekk atte bunt bi nga xam ni bokk na ci bunt yi gën a yaatu ci alquran ndax damay faral di wax ne ci sama njàngat ginnaaw li ñuy tudde maxaarijul xuruuf ak sifaatul xuruuf danaka buntu al mad mo eppul mrot ci al qur'an makharij al huruf mom harafu eh, nek amna makhraj kon harafu nek rek da koy concerner صفات الحروف تمت حرف نك أمن أي ملوكان لم نيو نيو دي تولو شي جروم كون بنت بابد دي كونسر ني حرف نك واي بنت جوغي دانك داني سيد لوني بنت بي أبو لم نيو تي القرآن موي بنت بخيتش ndax néew na ci alquran nga jàng ñaari bat ak ñet ta aggo ci xëcc ak xeetu xëcc bu mën a doon nag ci basmala bo boo ci basmala mi ngi ne bismillah lam gi ci lafdul jalal des ko xëcc arrahmani ميم غوغو ديسكو koo الرحيم كذلك حاجي ديسكو des koo xëcc fatiha noonu alhamdulillahi rabbil alamin رب العالمين بات عالمين نياري خيتين فا تا نياري خيتيو ييب بودي داغا تاخاو سي جيخنتال اي بي دونو بوكو دونو بوكو نونو تودو دونو بوكو اتي كذلك اهي بو جيل سي القران ولا سار بو جيل سي القران ديك دينا جافي لول nga jang ñaar baat ñett taxi wo ci xëc kon buntu bu yaatu la ci biir alquran motaxit cheikh souleymane al jamzur rahimahullah eh, buntan la ko ci téré bi jàngale ko yaatal ci bu baax a baax euh, ñetti euh, walla ñaari mawdu yooyu mu tudd nag ndax dañu fi nuun wa tanwin al mudud ñaar yooyu mu tudd wala ñetti yooyu du moom képp la jàngale ci téere bi waaye da leen tudd ñoom ñu wuutal fii ci des ndax junju naa ci sunu jotaay bu njëkk ni jàngale na fi ahkaamul miim as-saakina jàngale na fi lu mel ni mithlayni mutaqaaribayni mutajanisayni ak yeneen kon da tuddu yi mu fir mu taxawal yeneen yi ci des waaye am na yeneen yoo xamante ni jàngale na ko fi ànd ak ni nag du bunti tajwid yëpp la fi jàngale am na yeneen bunt yoo xamante ni man naam dinañ ko gis ci yeneen téere yi ci nga waaye yi ëpp solo daal jàngale na ko fi ndax it ilmu tajwid ay buntam bariwul ilmu tajwid ay buntam bariwul mu ni sammaytuhu bi tuxfat al atfaali عن شيخنا الميهي ذي الكمال سميته تدنا تيربي نظم بتدناكو بتحفة الأطفال تحفة الأطفال تحفة نكش عرب مي هدية ثمينة كادو بريش لن يوخ تحفة كن تيربي دفكو دي كادو جوخكو الأطفال باتو الأطفال نك آه نياري معنا أمنتي manam al atfal yani ñi nga xamanteni ni seeni at bareegul kon ñom lako talifal bu de ci makna mom wala manam al mubtadi'uuna fi ilmi tajwid manam ñi nga xamni dañuy door njàngum tajwid kon ñun ay xale lañ ci fànn gi ak nu seen at mëna a toll te maanaam moom nak moy mim ko jox mom ci shara bi nga xamni mom na shara tere bi bu ñu delloo ci sharam ba ma junjoon ci suñu jotta bu ñek ni chara na ci tere bi kon باتو الاطفال تحفظ الاطفال معنا ميغا خمني مو غنا مو غنا دبوك واخدي ت دي معنا ميم كو جوخ موي تحفظ الاطفال موي المبتدئون في علم التجويد كن تحفظ الاطفال يعني تيري لا بوخم داف كو جانغ مو نيك تير دور تي جانغ علم التجويد كاي دور نك نو اي اتام مانا تول رك مانا شا دوري نخ دانكا موي بونتو بي ولا bunt yi nga xam ni mooy buntub ilmu tajwid jàngale na ko ci waaye jàngale ko tamit ci système bu yomb boo xamante ni neex naa dégg kon sammaytuhu bi tuhfat al atfaali an cheikhina al mihi dil kamaali ma jële ko ci sunu sëriñ ba dëkkoon mii ju ñu naat suñu jotaay bu njëkk bi may tudd ñenn ci sëriñam tuddoon naa ci cheikh nuruddin al mihi neena ci moom la ko jëlee lan la jële ci moom ñi sara taxfat wala xam nañ ci wuute tuuti am na ñu ne tur wi maanaam turu téere bi jëmmi baatu tuxfatul atfal la ko cheikh bi conseillé mu tudde noonu nazmu bi am ñu ni déedéet mi ngi ci jublu xam-xam bi maanaam li mu bind ci téere bi ci xam-xam lépp mi ngi ko jànge ci cheikh nuruddin al al mihi ma bàyyi la waan xel ni mii ab dëkk la kon Cheikh Nuruddin moo fa dëkkoon Zil Kamali moom ma nga xam ni ku mat la woon foofu tamit charaka chara ñiy chara téere bi xaw nañ fee wuute am na sax ci bindkat yi ñoo xam ni changé nañ baat bi ndax alkamalu lillahi waxdahu la ñuy wax maanaam mat ak mat alkamalul mutlaq mat goo xam ne amul dara lu ñuy wax ni lii bokk ci yàlla képp ko def kon am ñu gis ni baatu dil kamaali xaw naa ne ku ëppal tuuti nañ ko changé moo tax am na ci ñenn ñoo xamante ni dañuy changé baat bi di wax dil jamaali waaye nag moom ci jëmmi boppam dil kamaali la ko la bind ñaareel buñ delaw ci chara bi mu chara bi mu charaal boppam mën naa am nam ko firee ci alkamal mutlaq la gën a jege ñu koy jàppal ngant ci wàllu googu ñaan borom bi mu jéggal ñu te jéggal ko waaye nag baat bi mënees na koo firee firi yu noo xamante ni day day wax ndax kamal mutlaq moom yàllaa ko yeyoo waaye nit mën naa am kamal nisbi matug nit maanaam am na lu ñuy wax matug nit nga xam ne nit ki bu fa àgg dañ naan ku mat la jubluwuñ ci matug yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xamante ni ñëw na ci téere yi xadis yi mu ni góor ñi ñu baree bari mat nañ ci la min ar-rijali kathirun aw kama qaal gor ñu ñu bare bare bare mat nañ ci mat gogi yonent bi di juñ ci hadith bi du matuk yalla gi waye matuk nit la ci jublu am ay critère yo xamanteni buñ ko natte ci gor man nees na wax ni gor gi dafa mat waye tamit mu junj ni jigen ñi ñi ci mat bari wuñu am ñu mu juñ ju ne aisha ak ñen ñoo ñu xamne des leen lim ci baram kon bu yonent bi wasallam juñ ji ak mat ci ay nit dañuy gis ni kooku matuk nit la ci maanaam kamal nisbi kon zil kamal yi dañ koy delloo ci maanaa moomu mu nekk maanaa mu wér mooy cheikh nuruddin al mihi mii nga xam ni moom la cheikh suleyman al jamzuri di wax ku mat la woon ci wàllu xam-xam bi mu yoroon waaye ku mat la woon ci wàllu joxe ko ak jàngale ko kon dañu gis ni arju bihi an yanfaa wala samaytuhu bi tuhfat al atfali an cheikhina al mihi dil kamaal yi baatu dil kamaal yi maanaam moom moo ci gën a moo ci gën a jub mu wax ni arju bihi an yanfaa tullaaba wal ajra wal qabula wa thawaaba arju bihi bëgg naa yaakaare naa ci téere bii ma bind ak xam-xam bi ma ciy jàngale an yanfaa tullaaba mu jariñ donga yi ñi nga xam ne dañuy sàkku xam-xam ilmu tajwid maa ngi yaakaar sama borom jariñ ñen ci téere bi alhamdulilahi rabbil alamin yaakaaram googi borom mi subhanahu wa taala tasu ko ndax la bu am njariñ ni ma ko junje eh, néew na eh, réew mooy dem te doo fekk jàngkat alquran di ko fa yittewoo waaye néew na tamit eh, ba ci borom xam-xam yi rawatina ci fànn gi ñooy dem te gisoo ñu ñu ñu koy ñu koy joxoñ ak di ci bàyyiloo xel nit ñi ñu baree bari tamit chara ko ni ma ko waxee woon junju na ni maa ngi ñaan borom subhanahu wa taala mu def ko muy njariñ ci dong yi nga xam ne dañuy sàkku xam-xamu ilmu tajwid wal ajra wal qabula wa di am yaakaar tamit mu nangul ma ko fay ma ci te bindal ma ci yiwu bare bare bare mbokk yi kon li moo nekkoon laytaayu téere bi incha allah sunu jotaay bii di ñëw ñu ànd ak nag ci eh, bunt yi nga xamante ne ci la jàngale yenn règle ci ilmu tajwid ñu fàttali leen yéen a ngi àndoon ak Abou Taha Mouhamed Alioune Guèye ci seen jotaay wa rattilil Qur'ana tartila di ci nafar lenn ci règle yi nga xam ne ci la ñu war a jàng almu tajwid ngeen mën di ko suivre incha allah ci ahlul quran point com wala chaîne youtube ahlul quran wala chaîne youtube la maison du coran asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله الله الله الله رتل القرآن ترتيلا